jame ndax xam naa li yàlla wax yàlla nee na li ma gën a euh, li ma daganal te gën koo bañ mooy fase mu ne daganal naa ko ci xadiisul qudsi la ko wax li ma gën a daganal te bañ ko mooy fase beneen bi ci des dama leen di wax ne képp ku ci am jabar di takki ñaareel wala ñetteel walla ñeenteel di ayibal ña ca des ku ñàkk ngor nga sa aawoog ak sa ñetteel takkil ku la neex waaye suturaal leen buñ bonee sax bu ko wax bu ko wax léeg-léeg nga dégg ko dem ayee ji moo tas këram ayee ji fële ba pare naa fii rek laay amee jàmm yaa bon boo ko fay amee bu ko wax c'est honte kenn du ko def ah mën daal balaa maa lekk lu neex rek fii la est-ce que fële da ko fay joxe est-ce que yaa ko fi joxe loo joxe di nga lekk lu neex waaye mënoo joxe mbaxalu saalum am ganaar yuñ njoñ mënul nekk xel nanguwu ko sax joxe mbaxalu saalum am gaña ganaar yuñ joñ xanaa bu la tegalee ganaar yuñ joñ te nga joxe woon mbaxalu saalum sax war nga laaj ndaw si foo ko jëlee gis nga ñun ñëpp nañ nañ ormal jigéen ñi nañ leen ormal te respecté leen loo xam ne boo ko ñàkkee uti ko boo ko amee téye ko boo ko ñàkkee uti ko boo ko amee téye ko te daf da nga ko war a tane par la force moom lenn rek lañ ko sant ci yow li taskunu ilayha jigéen ñi tamit toujours ma ne la yàlla daf leen wax ne góor ñi ay dof lañ loolu la yàlla wax di daf ko daf ko tuddul waaye booy gisee baat bi ni tëddee rek da ngay xam ne góor ñi ay dof lañ yàlla dafa ne góor ñi ay dof lañ donte daf ko dëxëñ li taskunu ilayha lu muy lu muy firi yàlla ne góor ñi buñ jaxasoo sa biti ca biti jaaxle daj lu ne te xamuñ fuñ jëm ñëw ci biir kër gi mu ne nañ fa fekk jigéen juñ yar joo xam ne fa lay noppale fa lay dale li taskunu ilayha la yàlla ngeen ngeen dale fa am fa am coono ca àll ba ñëw ci kër gi dale fi jigéen day dalal góor ci ragal ci ci ci lépp yéen jigéen ñi yéen moom li may wax de te yéen ngi wax rek li taskunu ilayha la yàlla wax góor ñi dañ war a dalee ci jigéen ñi dal toujours nag damay wax ne ki la war a dalal bu la gënee ràmbax foo jëm kër gi day tas ki la war a dalal bu la gënee ràmbax kër gi day tas kon jigéen ñi tamit première étape bi ñu war a njëkk a am te mooy minimum bi mooy état bi gën a baa mooy nañu dal bari na góor goo xam ne amul ja du toog këram ñu naan dafa mën a dox ñàkk jàmm ci kër gi la rek parce que ca mbedd ma la koy amee mu dem ca mbedd ma waaye kër gi ku fi doon am jàmm moo gën fuuf ngay dem ca mbedd ma nañ ci bàyyi xel waaye li may wax ñi ma gën a jege ku ma ci mayeti jabar nga fase ko te fekk jabar ji tooñu la tooñ bu wër penn boo xam ne man teg naa ci sama bët def ca la ma man yëpp boo ko defee ma bala àddina ak àllaaxira ak ku mën a doon nag unanimité nay Daawuda mii ma bokkal benn bàyyi sax ma def ko ko bu doon Daawuda bii ma bokkal benn bàyyi sax muy sama caatu bàyyi ma def ko ko waxuma la bu doon doom bi ma jur moom bu soobee yàlla yow man xëy am la ñuy gisewaat ci kanamu yàlla parce tamit jigéen ñi du ñu ay objet xoolal ki dóor jabaram fële ci ci ci ay ay yari liif li xaw ma liif la xaw ma croix la ci wàcceel sànke bi rek fii lu courant nga jàpp ko dóor ko ci xale bu am dix dix-sept bu amoon sax quatre-vingts ans quarante ans sax waru na ci wàcceel sànke bi wàcceel sànke bi lu ci ne waaye góor ñi dañu rëy rëy rëy rëy ba mel ni immeuble Kébé dañu rëy loolu mooy problème mu góor ñi dañu rëy bu la sa jabar ne jox ma lii sax sa xol baa ngi bineegar sa jabar war yoon ni fecc loola nga fecc sax boo amee boo bu dee am nga courage yaa ngi def lu yées fecc bu guddee nga futteeku benn dugg mooy xam nga lu muy firi mooy doo yàlla ku futteekuwul doo sëy yàlla day wane ne nit du yàlla moo tax muy ñëw di participer dafa naan sama jàmm bu ñàkk jom bi xam na ne du yàlla moo tax waalamu annakum mulaaquuhu wa bashiril muminina nisaaukum xarsun lakum faatu xarsakum anni shitum wa qaddimu li anfusikum waalamu annakum mulaaquuhu wa bashiril muminina yàlla ne boo futti koo ba set wecc wane ne doo yàlla rek ma présent noonu tamit sa xol bi bu ko futtikoo ba mu set wecc def ci yàllay kese yàlla ñëw ni ngay futtikoo bu bu soxna si teewee noonu nga war a futteeli ci xol bi yëpp bàyyi ci yàlla boo futteeli ci xol bi yëpp yàlla yegg si xanaa xamoo sangu sax loolu lay firi cangaayal farata rek loolu lay firi yàlla dafa bëgg nga teel a yegg ci moom moo tax mu ne la neel dung defal nii defal nii defal nii defal nii ku xam yàlla pire bal boo doon sangu farata balaa ngaa yeggal war ngaa yegg ci yàlla cangaayal farata rek ku ko xamoon piir li muy firi boo sangoo ba noppi yegg ci yàlla yàlla yim ñu sant yëpp pour ñu yegg ci moom la taalibe Baay Ñas bi fi ne anam moom xam na li may wax humu aarifuuna billaahi ñoom ay aarif billaahi lañ li may wax xam nañ ko taalibe cheikh al islam yi arif billahi lañ kenn ku nekk ak niveau ba nga cee yem nag waaw góor góorlu jigéen ñi gaaw nañ cee yegg ci yàlla ci ñoom waaye ci kaw nag nga muñ liñ lay def xamaa xamoo ne jigéen lim lay def bu la gisutoon yàlla la koy def moo tax yàlla bëgg yàlla dafa jël jigéen ñi teg leen suñ diggante ak moom ñuy visible visible mooy njëkk a lakk mooy njëkk a moo tax jigéen gaaw a gaaw a yegg ci yàlla parce que mooy entre mooy inter eh, mooy intermédiaire diggante góor ak yàlla moo tax jigéen a gën a njëkk a yegg ci yàlla ci góor yàlla du ko yónni nag parce que bëggul mu am coono coono góor rek la ko yàlla ci yéene moo tax du ñu am yonent bu jigéen amut du sous-estimer jigéen ñi non yàlla sous jigéen la gën a fonk waaye xam na ne dem ca pénc ma ñu naan la da ngay kàcc ma majunun jigéen yeyoowut loolu dem ca penc ma ñu dina sotti si birit jigéen yeyeewut loolu gàddu xeej di xeex jigéen yeyeewut loolu yàlla ne ko toogal ca kër ga yow duma la yónni dama yónni gars yi ba noppi ñu di nga di leen toppatoo ñu ma yónni yaa leen di toppatoo mu ne ko beneen bi ci des dama lay doyee leneen loo xam ne yaa ëpp le yaa ëpp yaa ëpp ñëpp ndax yaa jur anbiyaa yi yaa jur mursalina yi yaa jur yonent yi yaa jur wali yi yaa jur buur yi yaa jur président yi yaa jur ministre yi yaa jur député yi yaa jur imam ratib yi loolu moo ëpp doole ngay taxaw ca minbar ba bismillahi rahmaani rahim am ko ànd ak yow am ko àndul ak yow yaa ko jur lu fi baax jigéen la lu fi baax rek jigéen la kon nañ leen ormal nañ leen ormal nañ leen ormal nañ leen ormal nañ leen ormal waaye xoolal kii wallahi bu sharia amoon xam nga bu sharia amoon fii dina neex nam def ndaw si dañuy jox liif ndaw si mu def ko kem koo kem noonu waaw waaw bu sharia amoon duñ ko yóbbu kaso dañ koy futti ba mu set ñu jox ndaw si liif fépp fu marqué ci yaramam bi ak fu xotteeku dana ko dóor ba foofu xotteeku mu jàll fa ca des boobu rek a ci yewen ba xam ni fii lu courant mel waaye boo ko yóbboo ci kaso bale ñaari fan ñetti fan nga jugé ko tëj ko six mois mu génn takki beneen jabar di gundaandaat kële yaramam am ay tëndandiir ah mën na ca jaar traumatisé wu bañ góor ba faw à l'âge de dix dix-sept ans nga def ko loolu mën na fa jaar traumatisé wu bañ góor ba faw gis nga noonu fii li courant mel am na kàddu yu gën a yées fii lu courant yooyu te góor ñaa ngi koy jol jigéen ñi waxuma rek fii lu courant de am na baat yoo xam ne boo ko waxee sa jabar moo yées fii lu courant boo koy dóor parce que blessé nga ko profondément waaye góor ñi nañ yar kàddu yi boo bëggee jigéen lu ne nga daj ko ci joxe vingt mille francs njëgu attaaya te doo laaj weccit bu tabaski ñëwee nga xotti euh, mbasen joxe xar te amoo fa jabar ko dégg na ca am na xew ci mbokkam nga ne ko yóbbu ci lii mu ñëw ci kër gi nga jox ko cinq mille francs mu boole leen weccit amoo ngor amoo jom amoo ngor amoo jom boo amee ngor am jom la nga daan mayee te doo laaj weccit continuer ko ngeen baal ma tey góor ñi laay waxal parce que ñoom lañ dënk góor ñi laay waxal parce que ñoom lañu dënk kiñ dënk yaa war a yore yaa war a yor ba mu dëgër moo tax imsaak la yàlla wax fa imsaakun bi maarufin aw tasrixun bi ixsaanin imsaak la yàlla wax imsaak moo gën a jafe jigéen nag mooy la koy yàlla sant téye moo gën a jafe mooy ngoy benn yoon nga koy def ci sa dund mooy dinaa ciy joxe exemple toujours mel ni kuy waddee cinquième étage ñëw ba deuxième étage nga gis fil boo téye di nga bàyyi doo bàyyi sapeur pompier la fay jële ndax wóor na la ne booy bàyyi di dee jigéen noonu bu amee sëy noonu la war a mel daf cay téye ba mu dëgër waatasimu bi hablillahi jamian góor mooy téye mooy téye jigéen day ngoy góor day téye xam nga lu tax téye gën a métti téye gën a métti da ngay joxe xoolal man miy joxe cinquante mille francs semaine ñu xeebal ma ko yow nag da ngay joxe sa dix mille francs ñu toggal la añ ba mu sotti wax la baat boo xam ne doo añ waaw baat bu la teree añ mën nañ la ko wax léegi buñ tasee seen musóor yooyu ba yëngal seen bopp yi wax la baat bu la teree añ léegi wala booy añ mu mel ni nuwaa kenn ngay sàq mi waaw loolu nga jigéen rek ko mën maa la ko wax muy añ añ bi di ceebu jën bu saf-saf ngay sàqam mi mu mel ni ay newaakin dañ la ci defal waaye du tee nga muñ ko parce que moo la ko war a wax soo xamee yàlla pire dangay xam ne moom mii la ko wax moo la ko war a wax nga jàllale moo tax yàlla ne dee leen jéllale tey jéggale waafu wasfahu waa afu was wasfahu dee leen jéllale tey jéggale fa tabaarakallaahu foofu danay rek la ñuy taxaw kon ñun ñëpp nañu góor góorlu ngir yàlla defal yàlla li mu bëgg ci jigéen ñi buñ leen bundu xataal buñ leen sonnal buñ leen vexé buñ leen buñ leen buñ leen ndax yëpp yàlla ko wax ci alquran waaskinuhunna min haythu sakantum min wujjukum xoolal baat bam ci rek teg wala tudaaruhunna li tudayiqu alayhin yàlla ne foofu laa koy tëjee rek présenté ñu ñu mayee sey bi yàlla ne yéen góor ñi ñu ne mu ne wa askinuhunna dëkkal leen jigéen ñi de waa géñ naa ne askinu nangeen ngeen dëkkal hunna ñoom jigéen ñi mu ne nga dë yàlla mën affaire sëñ Souleymane yàlla bu yemoon foofu rek mën nga ndëkk ndakaaru bàyyi sa soxna Cees ci kaw lu dul coobareem yàlla ne min haysu sakantum fa nga dëkk ca ndakaaru dëkkal ko foofa ñu ne mënoon nga potoxlu ne maa ngi géejewaay naa ko bàyyi pikin di gundaandaat yàlla ne déedéet min wujdikum ca néeg ba ngay fanaan nafa fanaan kenn yàlla kenn mënu ko rëcc mu ne min wuj dikum néeg ba ngay fanaan na fa fanaan mu ne waaye lam fay fanaan fanaan wala tudaaruhunna bu leen leen xatal ñoom jigéen ñi bu leen leen lor li tudayyiqu ngir ngeen xatal leen alayhinna ci ñoom bul def lu tax ñu xat bul wax lu tax ñu xat mën nga def lu tax ñu xat yàlla dindi wax lu tax mu xat yàlla boole yépp ne walaa tud laa tudayyiquuhu ali e, wa askinuuhunna min haysu sakantum min mujdikum wala tudaaruuhunna li tudayyiqu alayhinna mu demaat ne wal yunfiq zu saatin min saati wa man qudira alayhi rizqahu fal yunfiq yow faadel mimma aataahu llah laa yukallifu llahu nafsan illa ma aataaha sa yajalu llaahu baada usrin yusra yàlla ne wal yunfiq na joxe dépense zu saatin na dépensé kemte laay wërsëgam nam toll ki am wërsëg yàlla ne bul nay nag tibbal ci sa wërsëg yu jox sa famille bu njaboot gi xiif bu ñu rafle mar te fekk yaa ngi ko yor xëpp leen ko boo ko amee wal yunfiq zu saatin min saati mu ne waaye wa man qudira képp koo xam alayhi ci moom rizqahu wërsëgam mu tuuti mu ne waaye nag moom it bu ne dafa tuuti rek ba dama koy korkoral du ma joxe mu ne déedéet wa man qudira alayhi rizqahu fal yunfiq moom it na joxe mimma aataahu llahu ca lako ko yàlla jox ñu ne ko lu tax mu ne laa yukallifu llahu nafsan yàlla tegul benn bakkan illa lu dut maa la xam ne aataaha loolu la ko jox ci wërsëg laa yukallifu tegut allahu buur yàlla nafsan benn bakkan illa lu dut maa la nga xam ne aataaha loolu la ko jox ci wërsëg mu ne saye jàllu danaa def man yàlla te lu bu ma defee kenn du dindi saye jàllu danaa def baada usrin gannaaw bi ma la jafe ñale ba dépense te la yusran ak yombalal ba ngay joxe dépense lu dut jeex ñu ne ko lu tax mu ne maa ko am man yàlla moo tax ki la gën a mën a dépenser ci këram moo la ëpp wërsëg waaye korkoral ci biir kër gi doo yor dara dara doo ko am loo fay courant sax doo ko am waaw maa ngi leen di baalu xàq nag wax ji lu ci vexé wu rek maa ngi koy jéggulu ki koy déglu ak ki koy seetaan à travers le monde ñëpp nag unanimité waxuma jublu ci attaque kenn wala vexé kenn in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu